الله أكبر الله أكبر الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مكو جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi doon daje tey ci ngoon ci commission bi nga xam ni mooy saytu weer wi te nekk ci biir coordination de musulmans du Sénégal daje nañ ci ngoonu talaata mu tolloog ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru koor gi dëppoo woon ak fukki fan benn ci weeru mai deux mille vingt un doon gëstu lu jëm ci weeru korite gi biñ ko gëstoo ci biir réew mi ak ci bitim réew li nga xam ni mooy déclaration biñ bëgg a jox jullit yépp mooy ñu leen di xamal ni weer wi feeñ na tey jii ci talaata ji gis nañ ko fu mel ni gis nañ ko Niger gis nañ ko Côte kon suba àllarba 12 mai 2021 mooy bis bu njëkk ci weeru korite gi muy shawal 1442 kon ñi ngi xabaar jullit yépp suba mooy bisu korite gi ñaan yàlla mu nangu ñu nangul leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بقو جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دون داجة تيتنغون في كوميسون دينا خمني موي سايتو ويروي تنكتي بير كورنانسون دي ميزنما سنغال daje nañ ci ngoonub talaata mu tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor gi dëppoo woon ak fukki fan ak benn ci weeru mai deux doon gëstu lu jëm ci weeru korite gi biñ ko gëstoo ci biir réew mi ak ci bitim réew li nga xam ni mooy déclaration biñ bëgg a jox jullit yépp mooy ñu ngi leen di xamal ni weer wi feeñ na tey jii ci talaata ji gis nañ ko fu mel ni Mali gis nañ ko Niger gis nañ ko Côte d'Ivoire kon suba àllarba mooy bis bu njëkk ci weeru korite gi muy sawal mille quatre cent quarante kon ñi ngi xabaar jullit yépp suba mooy bisu korite gi ñaan yàlla mu nangu ñu nangu leen asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu